Euh, Abdoulaye Fane ñu ngi lay nuyu di la dalal si réew mi ah. nga jiite UNAPES muy union mm. euh, nationale des associations de parents d'élèves et étudiants du Sénégal tey ñu mm. gis ne école bi mm. dafa am jafe-jafe ay mm-hmm. semaine wala sax ay weer a ngi nii euh, nan nga ko jàngatee waaw ñu jàngat bi rek moom mooy comme ni nga ko waxee rek mbir mi moom ba mu nuyoo vraiment kenn fayu ko comme ni ñu koy waxee ci wolof ndaxte def na ñaari at yoo xam ne feebar bi jaar na fi te avant bi sax di fi jaar grève bi amoon na mais bi bi bi feebar bi ñëwee syndicaliste yi aussi il faut le dañu am benn mag boo xam ne gii dañoo arrêté lépp ba jël seen alal sax dugal ko ci euh, pour fe pour pour jàppale ci feebar bi man fi jóge mm-hmm. léegi nag avertiroon nañ ne bu fekkee ne mbir mi dem na ba wàcc feebar bi dinañu delluwaat ci ci ci grève bi déposé nañu euh, préavis de grève mm-hmm. mais nag dañu bëgg leeral ne ñaari syndicat ñoom ñoo ci gën a fës moom mooy CUSEMS ak sa SAEMS mhm. ñeneen ñi nga xam ñoom ñoo nekk ci euh, école yi gën a tuuti euh, préscolaire beeg élémentaire bi boo ko seetee mhm. parce que G7 la mais cinq yi daanaka demuñu grève mais bu ñu moytuwul nag fekk li ma gis nii mhm. dañu nar dem ci grève général te loolu arrangé wul véritablement élèves yi arrangé wul gouvernement bi avant arrangé wul ñun ñun ñànk wàllu njàng meñ njàngale bi nga foog ne lan moo waral euh, blocus su euh, waxtaan gu àgg diggante hmm. syndicat yi ak ñoom ñii hmm. di enseignants yi li ko li ko waral rek moom mooy ab ab ab feebar kenn du ko toxal hmm. feebar bu dal di amee da nga koy ñëw teel koo gis gatandu ko jéem ko faj waaye toog a toog a toog toog ba mu toll foo xam ne fii mu ngi bëgg a jéggi dayo moom moo tax ñële aussi radicalisé léegi comme que nee nañ fii fukki fan ak juróom maanaam vers le 17. Mhm. dinañ jël solution waxtaan ci pour jéem a seet trouver une solution ñu ñu ñu ngi taaxirlu waaye nag li gën a doy waar ba ba ñun ba ñu intervenir ci sunu aussi ci waxtaan wi. Mhm. dañu ne woon ne comme que gouvernement bi d'accord na pour ñu waxtaan ñoom dañu waroon a teggi seen tànk. mais li ñu bett moom mooy euh, nee nañ woon dañ ko étudier seen base yooyu comme ni ñu koy waxee. Mhm. démb rek ñu dal di dégg dugalaan nañu beneen plan d'action boo xam ne bii euh, tey la commencé ba alxames. Mhm. ñun nag du ñu toog di seetaan loolu xale yi génn nañ ci mbedd mi dinañ dégg waay way juri ndongo yi dinañ génn. bu ko defee lan ngeen fas ñun de xam naa ne il faut ko dinañ fi def benn sortie rassemblement boo xam ne bu mag la te Dakar ba pare woo suñu ñoñ yëpp ñu dal di taxaw dal di ne nag il faut que ñu arrêté ñu mettre à la face de la responsabilité syndicaliste yi ak euh, vraiment gouvernement bi parce que ñun duñu nangu aussi ñu doon ñoo xam ne nii euh, vraiment ñoom ñooy euh, doon victime loo xam ne lii seen yoon naw ci. lu waral ngeen toog ba jamono ji ngeen bëgg a jóg te yaa ngi koy wax huitième plan d'action bu SAEMS ak sa jamono ji nga xam ne xale yi tamit ñoo ngi wàcc ñenn ñi composition yi defaguñ ko. ci ah. weeru février. ndax foogu leen yéex ngeen wàcc. mais euh, Elisabeth ñun yàgg nañoo jóg. Mm-hmm. xam nga du du ñoo xam ne ñii lu leen tëll rek ñu dal di jël média yi di ko wax fi nekk. parce que ñun dañu ay bànqaas ba ci école yi. Mm-hmm. ba chaque fois dañuy waxtaan ak suñu coordination départementale yi. Mm-hmm. di échanger. ñu nit nekkuñu rek Dakar lépp loo xam dañ koy def dañ koy partager ak suñu gox ñu nekk ci gox goxaan yëpp. bu ñu demee ba dal di tënk ñun ñu dal di ñoo dal di koy appliquer ce qui veut dire que yàgg nañoo dugg di wax di di échanger. te fi mu ne nii nag toll nañu foo xam ne fii nag quand même bëggatuñu nekk ci suñu école yi rek mais il faut ñëpp dal di génn bu ko defee ñu dal di jox mettre en face de la responsabilité ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo bëgg faagaagal école bi. tey monsieur Fane jàppoo ne naxaate gi enseignant yi di tuumaal gouvernement bi ci lañ nekk parce que kat accords yi lu yàgg la lu tax tey hmm. euh, ñuy waxtaan ñoom it ñu ñu ne dañoo toll ci déglu. waaw mais xam nga euh, loolu moom gouvernement bi moom wax dëgg yàlla daf ñoo bett ci wàllu woowu parce que wax naa ko sànq. xam nga jamonoy bu njëkk ba dañ daan dañ daan def monitoring bi docteur Cheikh Kanté moom moo ko doon dirigé mais bi feebar bi ñëwee nag dafa mel ni ñoom ñëpp lépp alors que amoon nañu ay moyens même bu fekkee mënuñoo daje sax parce que feebar bi laaju ko mais ñu war a mën a daje def visioconférence partagé di waxtaan pour jéem a seet point par point nan lañ ko mën a réglé je crois que bu fekkoon ne depuis pratiquement ñetti at a ngi nii waar euh, ñaari at commencé woon nañu def naa ne duñu toll fii léegi nag ñaari point yi gën a fës moom mooy wàllu euh, seen payor googu nga xam ne dañu bëgg ñu dal leen yemale ak wàllu euh, administrateur scolaire yooyu nga xam ne dañ ko bëgg a créer benn corps maanaam léegi ñoom dañoo bëgg que désormais muy proviseur di euh, principal ak directeur d'école dañ leen war di créer benn corps boo xam ne bi si ñoo ñu la ñuy jukki pour ñu dal di jiite euh, école yi loolu daal moom mooy ñaari point yi nga xam ne bu fekkee ni waxtaan nañ ci mën nañu trouver solution léegi nag li ñuy xaar mooy peut-être fii ak quinze jours loolu bu amee ah dana baax mais délai bi ñu fixé mooy fii ak Hmm. mais ñun teewul teewul ñun xaaruñu fi ak 15 jours ci dinañu dëkk. ndax jàppoo ne dañ ah. leen a dàq euh, ba 15 jours ñu mën a dellu si loolu rek pour bañ a joxe euh, seen position ndax ñoo ngay laam-laame ne day am euh, remaniement ministériel. pour man remaniement ministériel warul doon loo xam ne lii war nañ ko mën a def comme fii. ndax la ndaxte continuité wu service public dafa am ci administration yépp ñi nga xam ne yii ñoom ñooy jël ay décision ci ministères yi ñëpp xam nañu techniciens yi ñoom ñooy waxee seen xalaat. parce que ministre bi dañ ko nommé nii rek am na yenn point yoo xam ne expertise am mayu ko ko. yàgg nañ fi yàgg nañ fi dégg ministre yu ñëw ne maa ngi soog a toog nañ ma may ma dal ma xool dossier bi. yàgg nañ dégg li ni mel. kooku day fekk vraiment administration parce que man mii wax ak yow technique conseil technique laa woon ci ministère. Hmm. lépp bu fekkee ne dañuy def passage de service sax point yi nga xam ne mooy point de tension yi ëpp solo dañ koy jël teg ko ci table bi ministre bi war a mën a jël décision <laughs> donc ministre bi généralement c'est un poste politique donc euh, peut-être muy ay ministre technique comme ay ministère ay finance ak mel noonu nga xam ne ku xarañ ci wàll woo mais bu dee ay ministère de l'éducation nationale je crois que képp ku toog bu laajee ay technicien séance di wax fi nga xam ne fii bu fekkee ne réglé nañ ko problème bi dina dina saafarawu donc euh, vraiment loolu du alibi kooku moom wax dëgg yàlla xam nañ ne loolu du alibi te ku inquiétude ngeen am ci ëllëgu ndaw yi. inquiétude bi ci am rek mooy euh, boo boo depuis pratiquement ñetti at ñi xam ne ñu ñoo ay seconde. Mhm. tey ñoom ñoo def terminal. ce qui dire que déjà leer na la ne seen njàng meeg njàngale ñi moom dina am dara lu ci wàññi. di ko mhm. wàññi seen niveau. Mhm. pour rattraper mais nag di wax ne am na dund nañ fi ay at yoo xam ne yi toog nañ ba ñetti weer ñu gal di koy grève mais bu fekkee ne juboo am na am na nañu confiance ci enseignants yi mu leer ma ne am nañu possibilité pour euh, quantum quantum horaire maanaam waxtu yi nga xam ne war nañ ko jàng pour mattali ko man nañ ko def. Mm-hmm. waaye nag day fekk nag ay accord am te bu boobaa ñoom ñu dal di ci jublu. ndax ci euh, justement comme ni nga ko waxee noonu euh, tey euh, xale yi jotul ñu amal année blanche su ko defee qualité enseignement bi ñu gën koo xoolaat ndax yaa ngi koy wax léegi am na ay classe mm-hmm. intermédiaire yi nga xam ne ba mbas mi ñëwee dañoo toog jànguñu ñooñu tey mu am lu des ci ñoom. maanaam ci wàllum jàng bi Elisabeth mm-hmm. année blanche moom dama ko bëggul sax dégg ñu koy wax année invalidée. Mm-hmm. ndaxte loolu moom daf lay leer ne moom kooku retard la. déjà ci élève bi retard ci administration bi ay moyens yi ci def yooyu yëpp ñu mu dal di nax saay hmm. loolu wax dëgg yàlla toujours war na mën a am ay correctifs yoo xam ne dinañ mën a dindi régler loolu. Hmm. yaa ngi fàttaliku y' a deux un an deux ans dem nañu ba août. te aussi occasion la pour dire que ñun Sénégal war nañu dal di commencer foo xam ne fii sunu école war na mën a dem ba ay août. fii ay Côte d'Ivoire ak yeneen réew am na yoo xam ne day taw régulièrement te bu nawet ba amee dinañu jàng je crois que expérience boobu vivre nañu ko. ba véritablement dina mën a régler yenn euh, gàpp yi. sauf que ñun am na école yuy loolu yi yooyu yooyu yëpp loolu yëpp dispositif bu fekkee ne teel nañ cee jóg daaw jéeg amoon ay école yu taa mais organiser wu nañu woon ci gox-goxaan yi ba école yi nga xam ne dañuy taa ñu dañ leen di dañ leen dugal ci yeneen école yoo xam ne du taa. Hmm. en attendant peut-être ñu dal di résorber wàllu abri provisoire yooyu parce que bu fekkee ne da nga caagin ne rek école bi day taa ñëpp dañu tëdd seen kër jàng duñu jàngi mais kooku c'est c'est une perte mm-hmm. perte la pour système bi toujours nañu am confiance autorités yi nekk au niveau local aussi toujours dinañu am ay correctifs ay dispositifs yoo bu ñu ko defee dina mën a quand Euh, en attendant que euh, année bi dal di nekkaat ci kii nga xam ne 31 juillet la ñuy tëj bon ñu mën a euh, quand même régler quantum bi daal. tey jii ban yaakaar ngeen am ci ndaje googu nga xam ne ñu ngi koy wax ne dina am dans 15 jours. a ah, xanaa ñun taaxirul rek. dinañ foog ngeen ne ministre yooyu ngeen maanaam enseignants yi jàkkaar lool dinañ mën a faj problème bi. ñun xam nañ ne bu ñu amoon accord dinañ mën a régler quantum horaire bi waaye nag. comme que nee nañu fii ak 15 jours la lañ koy def ñu xaar ba boobu mais ñun en tout cas ñun UNAPES duñu toog di xaar ba la 15 jours dinañu dégg ci semaine bii. Mm-hmm. dinañu dégg ci semaine bii dal di woo nit yëpp képp kuy wéjuru ndongo ñu daje quelque part dal di man a jéem a wax ñëpp dégg pour que ñu dal di leen ne ñun dañu ñu jël suñuy doom di leen def comme ay arme boo boo xam ne bii dañuy kii donc syndicat yeeg gouvernement bi yëpp la ñu wax parce que syndicat yi aussi nañ jàppe ñoom bu fekkee ne nii lañ leen doon defal ba ñuy jàng. doon euh, ay tout tànk ci ndaw di jàng tey def naa ne kon du ñu toog ba naan dañuy ñax donc war nañu wax xam ne aussi am nañu part de responsabilité situation bi quelque soit voilà. d' accord euh, ndax foogoo ne état rek xam nga président rek moo ci mën dara. ah président moo ci mën dara parce que bu ñu demee ba lu mat depuis comme de temps ñuy nekk di waxtaan na ñu trouver solution occasion la pour ñu dal di koy wax nag ah. jamono yi moom neex na lool ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi feete ab coupe waaye nag je crois que avenir u pays bi li ci gën a am solo moom mooy ñu dal di bàyyi xel ci système éducatif. Hmm. waaw donc nous appelons le chef de l'État pour que vraiment mu dal di prendre en charge question bi de manière définitive woo parti yi ñu dal di toog waxtaan jéem a seet na lañ koy saafara de manière définitive parce que am na yenn question yoo xam ne yi ñun leer nañ ne gouvernement bi ministre yi mën nañu mën nañu jël décision parce que dafa am ay euh, wàll woo xam ne ci wàllu xaalis la te loolu defe naa ne ki nga xam ne kii moom moo yore réew mi moom moo ci a décidé wu. Mhm. voilà sëñ bi Abdoulaye Fane ñu lay jaajëfal bu baax a baax.